la Lampita. violence boobu Ousmane Sonko nag am na kuréel boo xamante ni tey ni Pastef toll kuréel boobu ñoo raw kuréelu Pastef muy lan Sénégal kenn du fi yëkkati fitna suma réew kenn du ko taal te Umar Jaxate jiite ko muy ay militant ñoo xamante ni ñi ngi fépp Seydina Alioune Gueye nekk coordinateur bi fii ci Touba kuréel bi yëpp muy senegal suñu réew kenn du ko taal nañ déglu ji seen vidéo bi ñu xool. waaye dama leen bëgg a wax leen lu am solo. préparez bu au waa ji ñu jàmmar lool. waa ji ñu nga xam ne moom lañu ñu jàkkaarloo. ku yaakaar ni wax ju neex. ak taal climatiseur tok sa salon moko fi jëlee ndax nga sa bopp kon waajal len sen bop chaque jour chaque heure chaque minute te préparez-vous au combat te bu len déglu nak ñi tok naan len way yene a fitna jamm nangam nangam li ñi xaar ci yeen moy ngeen préparer parce que am ah. réew li ko war a dafa laaj sacrifice na ngeen préparer ci sacrifice yoy donc préparez-vous au combat parce que Macky Sall ci ni wala nele dina abal réew mi asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora euh, mbokk àdduna wërngal këpp man Omar Diakhaté maa ñëw pour waxtaan ak bépp doomu sénégalais mu yewwa Sénégal ak bitim réew ak li ko wër di woote di ñaawlu di am mberteel ak njàqare ci liy xew ci sama dëkk muy Sénégal ñu ko daan tàkkantale sunu gal senegal ñu daan wax benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar fi ñu jëm mooy bopp bi tasaaroo na magum xar ñaar lu ko tasaaree muy façon wu politique ak façon wu bëgg jël réew bu bees biñ fi indi parce que ku déglu waa ji ci message am yi muy lancer ñëpp yaakaar ni dafa il s'adresse à ses militants fekk il s'adresse à d'autres personne jeunesse bi mu wax ni ñoom lay adressé pour ñu sacrifier wu jeunesse boobu cobaye la leen def parce que ñoom ñoo war a dee politique bi fi am taal kër jàmbur depuis ci Mamadou Lamine Koura Gueye ci Mamadou Dia ci Senghor ci Abdou Diouf ci Abdoulaye wad babi Macky Sall di jël nguur ci façon politique bi amul yak nañu cohésion sociale bi parce que ci discours la mëna défaré réew ci discours la mëna tassé réew discours bi tass réew moy discours haine discours bi domté sa jeunesse vers la violence vers l'indiscipline defal xale yi lavage de cerveau boo xam ni loo leen ni li nga bëgg ci yàq nga ko mën a amee li nga bëgg ci toj nga ko mën a amee li nga bëgg ci taal nga ko mën a amee ba ñëpp jaakaar ni taal ak yàq dëgg la taal ak yàq mooy yoon muy gàcce pour bépp doomu sénégalais ku ko def ndam yaa ngi ndamoo sa gàcce yi ëllëg wallahi al azim parce que waykat bi daana ko wax ku yaakaare jël gour par des armes périra par des armes le sang appelle le sang mais la paix aussi appelle la paix buñ la woowee ci dialogue des moments. demuma buñ la woowee ci defar réew nga dem. kon ñoo sétando vidéo bi muy euh, Sénégal euh, suñu kenn du fi yëkkati fitna suñu rew kenn du ko taal président Omar Diakhaté jiite Kurel Bobu, muy Kurel bu mag a fo xalat Sénégal 17 millions sénégalais tay yakarna ni so len xeymon lu tollu ci 12 millions ba 15 millions ñing ci bir kuréel bobu ñom dañu jog taxaw tem lepp lo xamanteni violence lepp lo xamanteni andul ak paix andul ak quiétude lepp lo xamanteni manipulation la ak intimidation la ñom dañuy jog jàkkanteel ak ñom ñingi partout nak à travers le Sénégal fo xalat ñingi fa tay yakarna ni discours yi ñi wax fi ne yi ngeen gis taal yi ngeen gis gisuñu ko ci Malick Gap gisuñu ko ci Bougane Gueye Dany donte jeune la donte am nay ambition pour le Sénégal gisuñu ko ci Thierno Alassane Sall gisuñu ko tay ci Pape Diop gisuñu ko tay ci euh, Abdoul Mbaye gisuñu ko tay ci ñu bëri ci ay opposants fi si kenn lañ ko gisé muy Ousmane Sonko leaderu Pastef yaakaar na ne tay quand tu es un leader tey discours de am solo un leader Ousmane Sonko aujourd'hui ses discours sont violents aujourd'hui Ousmane Sonko discours bu muy yëkkati yëpp amul dara lu ci méngoog demb bu muy commencé ak tay Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir c'est quelqu'un aujourd'hui qui a une haine envers le président de la République Macky Sall lenn rek mom moko ñor manam moy Macky Sall nak la fiy jóge mais Ousmane Sonko amul ben projet bo xamanteni mën nako ko dressal say Sénégal ba nga xamanteni Sénégal dina bouger zéro mm zéro millimètre fi mu Ousmane Sonko tay amul benn projet boo xamante ni mën na ko tegal Sénégal Ousmane Sonko tay amul benn partenaire boo xamante ni mën na ko Sénégal Ousmane Sonko tay système boobu doon wax moom lay xeex Ousmane Sonko tubaab yi muy xas ak Macky Sall Ousmane Sonko moo gën a nekk français tey ndaxte nee naa leen financier euh, Eiffage bu Gérard Sénac maanaam société français boobu kooku moy premier associé Ousmane Sonko di Mbaye Ousmane Sonko chaque fois su Mbaye Sène que ci bi yéen fofu lay yendu ak bëccëg kon Ousmane Sonko mi ngi utiliser tay peuple bi di len nax uniquement ngir il haine uniquement ngir ben rancune je crois que Sénégal ñu rancune nous on n'a pas de problème avec Ousmane Sonko on a un problème avec les propos de Ousmane Sonko on a un problème avec les discours de Ousmane Sonko on a un problème avec les théories de Ousmane Sonko on a un problème avec le système de Ousmane Sonko de vouloir terroriser le Sénégal on a un problème avec les gens de Ousmane Sonko yi nga ne manipulation on a un problème avec Ousmane Sonko Il on a un problème avec Ousmane Sonko qui passe tout son temps devant les caméras on a un problème avec un leader qui se dit être un homme d'État Il faut que foo ko de bi la mu jóg wax. tant